asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di la wax ni canta ak ngërëm na la ci teewlu bi ngay teewlu lu ci àdduna muy am tous les mercredis et jeudi 10h fi h fii lay xewee nag si la 2STV première chaîne privée du Sénégal la wax ne lu yàlla nam war na lu mu mottal daa jot te lu jot yomb ndax wax bu la ko yàlla nattoo bu la àdduna ñoree rek suuf la waaye bu la dëgg rek ñoree nattu la ndax saa su ne war nga caa mën a def toj penc boo xam ne dafa yëngalum réew ñuy ñaan rek heure bu ñu fi waxee lu lu fi safaanoo wala ñu def ko ñu ngi ciy te xam ne jubluwuñ ci woon lool heure bu ñu fi waxee lu la neex ngeen xam ne seen mbégte mooy suñu yitte te yéen bu léegi ñun dañuy reetaan ma koy feggoog sama naataango Abdou Aziz Ndiaye géwél bu civilisé euh, Abdou Aziz na def suma ma sama yaay <laughs> yow yow ginnaaw bu xar bi méttee da ngay xanaa nag jàllaabe bii ma Euh, sama waa ji indil. ah bu la bi rafetlu surtout Cheikh Yirim bi bala koddu maa ne mbaa Yirim may sa xëri mi ci marine la jox de bu la marine ah, ah, nday mari jabaram yëkkati ko jox ma. booy ñaa fan yi dafa dafa dafa dafa demoon noppalu ci. demoon baay sama waa ji moo ngi noonu gis nga jàllaabe bu baax bi ma jox. rafet na anglais ziar bu baax yaay di la jox sa wàccuwaay. Ah, di la ñaanal jàmm maa ngi lay ziar yaay maa ngi lay ziar di ziar waa kees di wax ni képp koo xam ne nekk nga ci prison maa ngi lay ñaanal yàlla na la suñu borom defal jàmm ci daraje Seydina Mohamed ba nga delluwaat sa kër nekk ci hôpital yi nag képp ku leen di seeti yaay dama la koy faral di wax saa su ne jël mbuusum banaana yàpp ko lu mat vingt cinq mille wala cinquante mille dem yóbbul ko nit fekk fa ordonnance bu ñaari téeméer wala bu ñeenti téeméer mën na ñàkk kuy seeti nit loo amul rek yóbbu ko ko di la ziar di la jox sa wàcc la wax na la yaay sa rose saf na. te ah, yoon newul ci sama rose te yaay ji laa bëgg mu dakk Abdou Aziz <laughs> Abdou Aziz ma lay woowee nga ma indi ak ban invité nga ma indi. yaay thème bi nag thème xam ko nag yaay. Ah, xaw ma thème man yaa yaa indi say invité yaa indi say. waaw tey nag yaay maa ngi lay indil Serigne Dame Serigne Dame euh, di Serigne Dame mu Serigne tuba nit ñi am nañu ko doon tooñ sax naan ko Serigne Dame borom Guinée dëgg la mais Serigne Dame mu Serigne Touba tey moom laa la indil di nit ku baax koo xam ni xaritu ñëpp la tey sëriñ Dame laa la indil yaay. sëñ bi maa ngi lay ziar. waaleykum salaam soxna Bella ñu ngi lay fay di la ñaanal jàmm. di ñaan sunu tamit sunu kàddu fekk la si jàmm. ñaanal bu baax tamit. kaw nu nabiyu sëriñ Mountakha Bassir. yëkkatil ma baat bi tuuti te baal ma. Euh, xaw maa kiyal course gi rek tuuti ñu euh, waxtaan. di ñaanal bu baax waaw dama ci jégalu bu baax rek di ñaanal bu baax tamit kaw nu na bi Sëriñ Mountakha Bassir. Mhm. di ñaan sunu kàddu fekk ko si jàmm. Mhm. ñu ngi ñaanal tamit mboolem xalifa sénéro yëpp Sëriñ Babacar Sy Mansour ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax. di ñaanal tamit mboolem waa diaspora yi nga xam ne dañuy faral di teewlu émission bi. ñu ci bëri bëri ñoo naan ma sëñ daam. seen mission boobu am na solo lool ñoom Bella. ndeysaan soo fa mënee egg nga egg fa gën a laabéere askan wi. Mhm. ak gën a xool nooy gën a dimbalante askan wi ñun loolu rek mooy seeni mission beneen bi ci toppaan nag Abdou Aziz ñu ngi lay ñaanal jàmm yowit ku baax a baax ci dalal gi ak ci yiwee gi ak ci mbaax gi ak ci yaatu gi ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom defal la jàmm. di ñaanal tamit nag boroom kër gi. ndax moom Euh, liggéey bu rafet rek lay def. Mhm. Alaaji Baara gërëm na ko sax sama kanam. ndeysaan bu nu woon ma wax ko fa mu ko doon gërëme. ndeysaan Alaaji Baara xalifa général de Mouride. Mhm. ñaanal na ko gërëm na ko ñaanal na ko. ndeysaan ah, papa dafa baax ak suñu yaay Marème kon Elaas Ndiaye ñu ngi koy ñaanal bu mhm. baax jàmm moom it. di ñaan sunu kàddu fekk ko si jàmm waaye nag ñu ngi ñaan tamit waxu di la yow ma màqaamaati rajaal bi laa tasal su leen wa bashiri bi nijaal ñu ngi ñaan sunu borom ñoddul ñu màqaama yu kawe kawe kawe Euh, musal ñu bu baax tamit te aar ñu sàmm ñu aar ñu bisimilah ñu ngi leen di déglu ci seen i questions. waaye teel naa métti moom teel naa métti kay. teel naa message sax dama teel a dal. man damaa teel a tiit maa ngi gis sëñ Demba Senghor saltige bu mag bi mi ngi seetaan. sëñ Demba ñu ngi lay ziar di la nuyu nit ku baax. Mhm. tey sax moom laa jagleel émission maa ngi gis daal ay kilifa Serigne Asek. borom digal suñu waaji man buñ dee wéy ci ndigal Serigne Asek tax na ci borom canaba nit ku baax tey daal dafa mel ni borom xam-xam yi ñu ngi déglu ki nga xam ni moom mooy Serigne Dame. Mm. Ah, te biir na ni sëñ Asa ngi toog dañu seetaan Seck borom digal suñu waaji ki nga xam ni bi émission bi dooree ba léegi ñun ak yow la. yàlla na ko yàlla yàlla defal jàmm Seck yàlla yàlla yokk fan yàlla yàggal taxawaay. ñun yow rek la ñu am borom digal. mi ngi noonu. waaye nag euh, defe naa ne tey moom. ah as as thème bi ñëwal. waaw waxtaanee réew mi réew mi dafa mel ni yaay. as temps tax nga ci réew mi de tiit nga de. waaw réew mi waa tiit naa. parce que démb rek maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Demba Sokone saltige bi ne ko réew mi est-ce que amul tubay ju réew mi amul jikko yi. yaay yaay yaakaar naa ne bi il faut que ko tey ba léegi yaay nit ñaa ngi rey rey yu ñaaw. nit xale bu nu di démb. waaw daam euh, xam nga réew mi dafa am fu mu toll. Mm-hmm. dafa kilifa yëpp wax. Mm-hmm. ngay kilifa ci murid yi tamit di doon taalibeb sëñ Touba. Mhm. waaw sol bi rek ak maxtuma yi rek wane na ne taalibeb sëñ Touba nga. Mhm. murid la yàlla yàlla na sëñ Touba fayal boppam. Mm, fay bëggoon nag waxtaan ci ci réew mi. Mhm. mais dafa am fu ñu ko war a war a war a. débat bi fu ñu ko war a teg fu ñu toll bi parce que réew mi boo dee xool ñiy jékki-jékki di xaru bari na. rendante bi bari na. xale yaa ngi dee comme ay weñ. te ragalatuñu dee. lan moo waral lool ci suñu Sénégal gi nga xamante ne nii ñun musuñoo musuñoo musuñoo am ay ay di def ay violence wala ñuy ñuy def yu tegginewul mm-hmm. mais actuellement dañ cee dañ cee roy ba la ñoo dàq xale yi ñeme nañu dee pribraj ñu génn ci mbedd bi xarit ak xarit morom ma xuloo mu rendi te rendi waate bi moom moo fi gën a xew man rendi waate bi moo ma jaaxal mm-hmm. rendi waate moom pose la léegi waaw rendi waate mm, euh, soxna Bella ñetti mbir mi ngi ci mbir mi ngi ci ba waral réew mi amoog jaxasoo nii mm-hmm. comme ni ngeen ko waxee rendente bi waxantalu ñaaw Euh, ñetti mbir yi bokk na ci li ko sabab. muy lan. Euh, euh, daa gis bu njëkkoon léegi gisatuñ ko suñ maamee nen meloon ak léegi xale tey nen mel xam nga bokkul caaxaan yi bëri na lool caaxaan yi mooy mooy yàlla gi. Mm-hmm. comme tout léegi Abdou Aziz xam nga jaadootul. Mm-hmm. léegi mooy yàlla nag bu bëree mooy war a si day tilim. suuf si. suuf saa ngi jooy ci baatin bi. waaw suuf su tëri moom xanaa xam ne borom baatin ne xam ne suuf saa ngi liñ ko daa defal moom lañ ko defal. suuf su tëri nañ ko war maal ga. ah war maal war maal ga. ana war maal. Mhm. léegi war maalatul. lu mhm. neex la ñuy def ci suuf gën a mën a caaxaan xeeb ko. Mhm. mooy yàlla gi lu gën a yaatoo gën a léegi kon mooy waral tamit suñu borom de wàcce ay musibaam ay ay balaam. Mm-hmm. kon mooy yàlla gi bokk na ci li gën a sabab lii di xew di xew. yéen borom xam yi yéen a benn benn benn ngi noonu. Mm-hmm. ñaareel ba ca toppaat tamit soxna Bella. Mm-hmm. am na ci eh, ñoo xamante ne nii naqar. naqar naqar waaw naqar baaxul. naqaru xol waaw naqaru xol. dafa am ñoo xam ne dañoo dañoo dem ba am déception ci réew mi. naqar dañuy am naqar. léegi nag ku amee naqar day xaw a jege saytaane tuuti. mooy waral bu meree mën naa def ay. boo amee naqar da ngay jege seytaane da ngay jege seytaane sa xol bu tàngee nga naqar nga am naqar ba pare te daloo yéesaloo njàpp dal mer nga am nga naqar ba pare mer kooku lu ne mën nga ko def parce que seytaane daf lay jege man nga man nga man man nga mer def loo xam ne jam nit boo paree réccuwaat la nga defoon ngir lan naqar bi nekk ci yow kon faaw tamit ñi jiitee mbir yi ñuy xool lan mooy saafaray askan wi pour ñu amoo. dimbali leen ñu dimbali leen pour naqar naqar yi man a wàññi ko. Mhm. yaa ngi dégg fi may wax naqar baaxul. wax nga ñaar mooy gi ak naqar. mooy gi moom mooy li. gën a mooy gi yaay bëgg naa mu. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. waaw waaye naqar tamit baaxul. naqar baaxul ñu bëree bëri dañoo amee naqar. àdduna bi dafay naqar waaw ñun ñëpp xam nañ ku ne sa xol neexut. waaw léegi du ñu waaye déglu sama yaay mu wax la naqar naqar yi nga xam ni ba xam lan nga ci lan nga ci gis. waa ñu ci bëri laa ne réew mi ni mi ci leen amee naqar am nañ naqar naqar ci réew mi. Ah, seen xol ni réew mi demee moo tax ñu am naqar seen xol am na ñu bëri mhm. am nañ ci déception naqar mer nañ ci. beneen bi ci topp tamit découragé wu nañ mer nañ fipp nañ. Ah, waaw ñu ci bëri bëri fipp nañ. ñu ci ah, bëri bëri léegi nag beneen ba ca toppaan nag. am na ci jinne yoo xam ne dañoo tasaaroo ñëw ci suñ réew laa ilaha illallah di dugg xale yi di leen xabtal mooy war a xale yi dem ci géej gi mooy war a xale yi dem ci géej gi te duñ xam sax li leen demloo ci géej gi Abdou Aziz da ngeen dégg xam-xam xale yi xale yi xale yi xaalu di dem ci géej gi di des ci di des ci ndox mi dañoo bëgg a tekki li nga wax rek la senegal dafa metti xat-xat yi bari ñu bëgg a tekki loolu mais am na ci ñoo xamante ne mais ci ñoo xamante ne li leen di demloo du neen ah dama ah. ah. géej gi dafa am yu ci ne yoo xam ne day soxla. waaw ku baax dama day woo gars yi day woo xale yi. damaa bëgg ma may ma Abdou Aziz ndax munoo. walla wallaay soxna Bella déglu rek géej gi. doon def ko toog fii nga napp ko. waaw géej gi faa ñu taxaw génne ay wax tey nga xam ne sëñ daam. waaw sëñ tubaab waaw ma ñëw la géej gi dañ cee war a taxaw ñu wax ci xale yi parce que buñu nee dañ leen woo xale yi kenn woowu leen dañoo toog Sénégal Sénégal métti ñiy jàng ba pare ñi amuñu liggéey ñii def leneen. loolee mooy naqar waaw baal ma ñëw. mooy. dig ma tontu de ku baax ndax man nga yee askan wi rek moo tax ma teg la fi. nga dajale sa 400000. gis sa yaay xam ne boo duggee ci géej gi dee ci nga dem dugg ci géej gi dem fay sa fay sa gaal lijjanti ko say morom ba te ko ngeen départ nga ni géej gi lay woo géej gi woo la. la leen dem loolu nag dañ koo xam ah, ah, am na ci ñoo xam ne leen xabtal ba ne dem dañ koo xam. Ah, te nga di jël am na ci ñoo xam ne dañuy jël sax alale jàmbur dañ fee nekkati jinne jinne baaxut jinne def lay xabtal te dafa am géej gi dafa am ay rab yoo xamante ne ñoo nekk ci géej gi dana soxla. rab yooyu xam nga ni ñu tudd. buñ soxlaa rek te ndaw li defarawut ngémbuwul ngém ngémbuwul defarawut yaramam lu ko fëkk da yomb mooy war a dee yi kam tulleeg màlle. jinne jinne dana xabtal nit tamit dugg ko mu jam nit. waa léegi li ma bëgg a laaj seen daam kon kon te te jinne yooyu li leen may accès mooy yu ñaaw yi ñu def ci réew mi doom waaw man moom dëgg ma yàq. dëgg la yàq yu ñaaw yu ñaaw yi ñu def ci réew mi. yu ñaaw yi maasa woon di sellal di set jinne yi ah, suuf tuub di ji tuub man mii di wax yow junne yu ci yu xaraam yu ci bëree bëri dama di tuubal. di léegi nan nan la ñuy sellal. loolu moo waral ne ñu naan daam borom jinne. waaw ah, mais nee nga sëñ daam mu sëñ Tuubaa moo la nit ñi nit ñi ñooy wax loolu. waaw waaw léegi sëñ daam man lu ma mën a am doon xaarim taalibe xaarim moo ma gën léegi da nga ni mooy bi dafa bare. torop te mooy yàlla baaxul. baaxul loolu faa nga wax teen teeg nit ñi xool lan la leen mën a indil suba. sëñ daam de xanaa Moussa mooy yàlla. ay. waaw ñun moom ñun moom euh, euh, ku na ku ñu xam. xam nañu bi ngay xale juumoo benn yoon. xam naa continuer say laaj ndax man mënatuma baat ah. ci ay caaxaan. xajuñu ci caaxaan. xam na ne mooy waral ñuy wax ñi nga xam ne dañuy caaxaan pour ñu leen di laabire ah. mais yow bu fekkoon ne bu fekkoon ne sëñ daam kay ak ñeneen ñi ñoo am na ci discours yoo xam ne du ko indee sénégalais. Mm-hmm. sëñ daam bokkut ak ñoom kay moo tax mu leen xëcc. nan la ñuy fuute fuute suuf si lañ bëgg a xam. weesu wut laabal sun laabal sun sun sun sun roo yi ñu laabal ko set bi ci fexee set ngay laabal suuf si kat du leneen. lan ngay wax xale ndax ndax ndax xam naa ne xale boo ci tolloo di nga def fi fu xale xale ku ci yàgg dof Euh, waaw ñu ñu ñu dal jigéen ñi dal. cuma démb Saint-Valentin suñ mag ñi bañ cay toll dañoo def doon yëfi xale mais dañ ko aw ak yoonam. jamono bi moo dox ak yoonam mais jamono bu doxee léegi moo waral tamit jamono bi di am di nii rek moom moom faaw ñu ñu ñu delluwaat démb moom. Hmm. bu ñu bëggee am jàmm moom faaw ñu delluwaat démb. loolu moom pour abdosis. Hmm. Euh, li ma la fayee ko ba ah, bu ñu bëggee réew mi neex. Ah. rayante yi dañ. yaa ngi dégg caaxaan yi ñu bàyyi ko. caaxaan yi moo waral lii lépp. waxtaan ak sa xarit ba ci yàgg. wala nga jotee sa xarit ne ko daaj paaka daaj koy daaj rey. la ko la ko def noonu a waxtaan ak ñoom na loo xam bi mais xanaa ma ñëw boo ko ci tegee ci tayu ko tayu ko xale yi dañuy rakkaaju. da tayu ko tayu ko am na ci ñoo ah, xam ni. jël sa en jàpp Abdou Aziz di ko yootal di ko yootal. en ko en boo xamante ni nii yow yaay am sa enu enu bopp contre Abdou Aziz Abdou Aziz def la dara. am na ci nga rey ko mais am na loo xam ne bu ñu ne tayu ko tayu ko tayu ko dañ koy continuer. am na ñoo xam ne ñoo ko tay la ray léegi mu jeex. waaw ku rendi nit ñu rendi la loolu am problème ku rendi nit ñu rendi la waaw. parce que lii day bëgg ëpp. waaw ku rendi nit ñu rendi la loolu Abdou Aziz nanguwal naa la. Ah, ah waaw loolu loolu nanguwal naa la ko mais tamit tey jii Abdou Aziz li nga wax nii ne nit dina ko yoolongal ba ba jam ko paaka. Ah. la ko Abdou Aziz def tamit ca suuf te yëgu ko xëy na Mohamed xam nga la ko dugg la ko dugg di ko xabtal di xabtal fii ak rek Abdou Aziz daam jàmm. mais def def bu jar. nga xam ne kon Abdou Aziz mën naa ne yàllaa ko rey waaye sababu saytaane tamit mi ngi ci. ah, ah waaw waaw noonu la. noonu la dafa yow ñiy rey nit ñi danga leen. noonu la ko a waxee. ni nga waxee sabab ba laa sabab ba. sabab ba sabab ba. leeraluñu sabab ba sabab ba sabab ba mooy li dugg nit ki ba mu def li mu bëggu la def. bu paree réccu lu war a dugg nit mu war a jàkkaarloog nit. nit ki bu am njabootam am léppam ñëpp yaakaar ko jabootam mu am ginnaaw gu mat sëkk. waaw nga jàkkaarloog moom. waaw def ko comme xar mu tër. ñaaw na. léegi sabab ba. sabab ba sabab ba weesu li ma la wax nii. waa léegi sëñ Dame jinne tasaaroo di dugg nit di leen def. sëñ Dame daam la ma lay laaj. parce que jinne sayaatin moom lu ñaaw rek la bëgg. waaw waaw daam la ma laaj. daam lu ma lay a ñaawee rek moom doonoo ko ca gënal. sëñ Dame dafa am lu ma lay laaj. Abdou Aziz loolu ma la ci ma déglu Abdou Aziz xool Sidi mi ba mu neex ko. waaw. waaye dañ ko bañ a natt. déglu ma rek mu ne dama dama paaka léegi Abdou Aziz ne tay ko léegi mbokku Sidi bu rey Abdou Aziz tamit tay ko. am na ci am na ci yoo xam ne ñoo ko tay ñun dëkkuñu Amérique duñu ay américain ñun senegal gii lañu ñu dëkk. ay américain sax bàyyi bi dafa ëpp léegi. boo meree nit sax yaa ngi xool paaka boo ko jam wala wala loo ko def wala nga xool nit ba mu neex la moom kidnappé ko ëpp ko doole rendi ko solution bi parce que bi dafa bari léegi wallaay nangul naa léegi nag sëñ daam wallaay nangul naa waaw mais ñoo ko tey li ngay wax ni wallaay nangul naa ko dama nangu ne waa waa la ko kay xam nga ne tëyu ko ndax bu ko defee ba pare da koy réccu waat ko dal yow bu ko defee ba pare da koy li ma gis nii lii dugg nit ñi daal loolu war nañ cee waxtaan bu baax a baax léegi lan xam dugg ñooy dugg nit ñi di leen def loolu loo xam ne bëgguñu ko def loolu war nañ cee waxtaan baax beneen ba ca toppaat mooy ndaw yi tamit nañuy defaru nañuy jug seen yaram di defaru surtout muy waxambaane bu góor moo xam bu jigéen bi parce que boo defaruwul rek mag ñi dañ daa wax naa alale jënne nga waaw boo sàgganee ala la jëndee loolu kay xanaa bellaa wala daw ko mm-hmm. yàlla boole sama benn xarit dàbbam mu defal yaram ku sàggan ku ne ala la jëndee wala bu dee jigéen ngay sol yére yu jotul génn sa jimbax ci biti ala la jëndee léegi nag ala ala la jëndee kay léegi kon kay mooy jëndee bàyyi def mission rek nit ki mi ngi nii di waaxu dem waaye la rek comprendre sama xel dos nit a ngi waaxu dem nii mais ah, waaw kon léeg-léeg si nga ngay dem ci mbedd di dajante koo xam ne da lay wóor ni kii du nit Eh, eh, sëñ Dame koy booba wallaahi soxna Bella bul ma wedd de wallaahi lasim am na ñoo xam ne ñu ngi dox ne boo ko weddee ba mu woo Guinée fii sa problème man man man man napp man loolu ma soxna Bella li ma la wax nii laa ne man nappante wu ma li ma <laughs> waat naa ci alxuraan am na nit yu dox yoo xam ne ay nit barke sëñ Touba. léegi xale yu jigéen yi nga xamante ne yow da ngaa def ne alal yi nit dafa xëy naan ma ay xaaral ma dimbale la ci benn mbir. da ngaa def ne alal yi nga seen yéen alal yi nii da def ne nit nit la. ah nit ko ñàkk liggéey ko waaye yow. ñàkk daal moo lay may yéen alal yi. waaw yéen alal yi doo nit. pour ñu xamee ko noonu yéen alal yi nit mënu koo yor nitu nit ku kese nitu kese nii mënu ko yor dafa am loo àndal mën a yor yéen alal yi waaw yow man suba mën naa fee xëy am defal naa suba mën naa fee xëy am alal te du ma ànd Abdou Aziz mën na fee xëy am alal ci kaw nga tasee mbir rek ñu boole laa mbir rek ñu ne Bellamy du woon Bellamy waaxu fi waaw hmm. waaw loolu am na ci côté boo xamante ne araam boo xam ne dafay araam mais am na ci côté boo xam ne araamul parce que boo tasee koo xam ne nitu yàlla moo am xaas nag mën na laa waxuma la loolu nit ku ñu jox jinne te bu boobaa tawféex lay doon man nga tasee nag koo xamante yu bon lay def moom moo may la pouvoir ab saytaane da nga am alal nu mu gën a gaawe mais ah, ah, ma mujj a wax araam yu bari ñi ngi ñi ngi ñi ngi nekk fi di am alal buñ tëddee duñ nelaw guddi parce que ñi seen diggante ak suñu borom waaw neen ko amee la moom du bàyyi ba ma wax pare waaw ah, da ngay leeral rek yaay dama ñëwul yaay man xam nga maay koo xamante nii lu nit wax bu tegoo ci dëgg man ma nangoo ak yow bu bu tegul ma tegal la. Eh, sëñ daam ba noonu naa internet bi am na ñoo xam ne fi mu ne ñi ngi dugg naan sëñ daam yorul ginne yorul dara ma metti ko dara. waaw loolu seen gëm-gëm la. yonente yàlla Moussa daf na woon yàlla gémmiñ nit ñi damaa bëggoon ngeen tëjal ma seen gémmiñ yi man ma rek tëjal ma gémmiñ yàlla na ko man Moussa loolu dama ko ah man mi nga xam ne maa leen moom lu ne lañ may saa yu xëyee di ma di lu ne ma may wax di ma di ma di ma di ma di ma di ma lu ne ñu wax ma ko man yàlla lu ne ñu wax ju ñaaw ju ne ñu ma ko wax ma ne ak di ma xalab ak lu ne ah Moussa loolu ngay ñaan aw ma ko de noonu la ko yàlla waxee loolu yi ngay ñaan aw ma ko gémmi ñi nit ñi kenn ko mën a tëj moom kay nit ñi bàyyi leen ñuy wax rek wallaay gémmi ñi nit ñi ko tëj gémmi ñi nit ñi kenn mënu ko tëj benn yow ma wax ah aca téléphone baa ngi sonné yaay jël nañ jël kooku salaamaaleykum waaleykum salaam. ah sëñ bi noo def. wallaay maa ngi sant yàlla bu baax. dooma baal yëkkatil ma kàddu gu tuuti rek noo tudd fooy wootee. man maa ngi tudd Ama Ba. Ama Ba. di wootee Linguère Ndiaye dëkk Jolof. di fan. dëkk Aliou Nguy Ndiaye. dëkk Aliou yokkal leen ñu noo def noo def ziar naa la. alo waaw allo. ma ni ziar naa la noo def. waaw delloo nañ leen ziar ci bi rek. lan moo ne woon sa xalaat ci waxtaan bi. waaw li nekkoon sama xalaat ci waxtaan bi yéen ñett nekk ci plateau bi ñëpp ziar naa ne delloo nañ la ziar ziar bu baax. waaw di rafetlu aussi si waxtaan yi ngeen di waxtaan. ndeysaan ndeysaan. waaw damaa xam ne aussi nit ki nit ki tamit euh, dégg nga damaa dégg euh, sëñ boobu sëñ bu mag bii di wax. Mm-hmm. parce que xam nga yàlla suñu borom dafa ne wala gada karam naa bani aadam. sëñ daa wuy ko. waaw. waaw maanaam nit tiim nit rey nit rek ba pare rëccu ko. Mm-hmm. loolu moom man moom euh, wax dëgg ci ku nit ku nekk ak sa xalaat ngay demee ak ci ngay doxee. Mm-hmm. loolu moom nit dina tiim nit rey nit ba pare daw dem. Mm-hmm. waaw bu doon rëccu du am du daw dem. bu doon rëccu du am du daw dem. déedéet. waaw mais affaire nit moom ci li ma yaakaar. Mm-hmm. parce que yàlla nu mu nu mu warmaalee doomu aadama nga tiim nit ki rey nit ki. Mm-hmm. waaw. ba pare toog rëccu naa. non loolu amul. waaw parce que keroog rek am na ñaari buuse yoo xam ne ay xarit lañu euh, koo xam ne tudde na doomam doom. Mhm. moo ma tax di def thème bi di fees xar ba pare mhm. rey nit yi daw dem. Mhm. kooku rëccuwul. rëccuwul. déedéet kooku kay dafa torox tànge. dafa torox. wallaay parce que tey ki mu tuddee doom tey su màggee tey dina wax yoo de. Mhm. maa rey sa papa ki ma tuddee doom moom moom ma rey sa papa loolu rek dafa ñaaw. dafa ñaaw. ndeysaan. waaw donc dama bëgg aussi sëriñ bi buy nekk ñëpp di leen ñëpp adduna bi ñëpp leen di seetaan. Mhm. Mhm. waaw ku rëy nit. waaw. yàlla ak nu mu ormaale doomu aadama. luñ la war a def. wallaahi liñ la war a def rek mooy. xam nga ñun suñu sëriñ fii nii wote wuñu ko sëriñ boo xam ne moo nekk màkk mais sëriñ yëpp benn lañ. Mhm. Mhm. mais ñun suñu yërmande bi moo tax ku rey nit duñ la rey. Mhm. waaw mais doo génn baba ba daa daayiman. waaw xam naa ne maa ngi leen di jaajëfal ñu ngi ñoo ngi leen di seetaan yàlla na leen yàlla jàppale wa salaamaaleykum wa rahmatulah. amiin amiin amiin jërëjëf baax nga. jërëjëf baax contribution bi am na solo. am na solo sëñ daam mais moom moom sëñ daam dafa jooloo moom. dafa jooloo sëñ daam wax na dëgg. parce que man sëñ daam man wax man mi toog fii ma ci. man mi toog fii sax li wax ma d'accord ma doonu xooloo fii li ci àdduna. Hmm. waaw xaar xaar sëñ daam. tey dafa ñëw pour napp waaye man dama ko émission da sëñ daam dafa nànk ñun moom suñu émission li ci àdduna. li ñu lay laaj doo bu bellaa di wax il faut nga déglu ko. ñun ay ginne ñu toog rek ay ginne lan. ah as dégg nga ah, ah, ah, bu fi ginne ay ginne nit day dox <laughs> te du doon nit day dox. yaa ngi dégg léegi sëñ Dame nit ray nit ba pare. nit bëgg a taxaw ne dafa ànd ak dara. te loolu mi ngi bëgg a bari ba pare tàqale bopp nit. ak bopp moom kay daa doy waar. nga xamante kii def lii moom dalay wóor ne lii moom lu ko def ah kon kon ah, yaa ngi door a ñëw nag. wala nga def loo koy wax maa ko. xam nga lan la xam nga lan la man mënuma maa sax. sëñ Dame sëñ Dame sëñ Dame xel nga may teg déglu ma rek sëñ Dame waaye sëñ Dame du ma may ma wax. maa fi indi ku ne. yàlla na yàlla musal saytaane. waaw nee leen amiin rek. yàlla na yàlla musal saytaane. amiin amiin wallaay saytaane def loo nit lu mu bëgg. saytaane dana gis ak kër gu neex sax. Mhm. mu solu nit mu dem fa de rambaaja ba kër ga tasaaro ñuy rayante. nan la ñuy def ba dàq saytaane. moom saytaane ji mu ñëwaat toog. sama yaay nan la ñuy def ba dàq saytaane suñu biir kon parce que tamit kon mi ngi bëgg a bari ndax bu ñu demee ba xarit ak xarit man xam nga rey ay jam laa ci doom dégg jam na ko paaka waaye tër rendi moom saytaane day dox dafa ëpp ci Sénégal saytaane day dox ci si biir doomu aadama sëñ ah? man du ma sëriñ rek nag war na nga may këyit saytaane déglu ma bu ma këyit loo saytaane day dox ci day dox ci day dox ci nan la ciy doxee bu bu bu ci doxee di dugg ci xol bi di ko tëf tëf mooy war def loo xam nga sëñ daam yooyu boo ñu koy wax te waxoo ñu saar yi wax ñu ni muy demee ak kii bi ñu man bokk du ma la gëm man Abdou Aziz danga may wax nii lay dugg ci lay duggee ci deretu nit ak nii wala nangam wala nangam parce que amul tax man dama am ay nit ñu may fréquenté yàlla jagleel ku mel ni sëñ Demba Senghor ay nit ñoo xamee dañoo xam di faj xam maanaam ñun pour nit ndax ñu day jafe sëñ aasa ngi nii duñu xool borom digal dafa am yoo xam ne ñoo xam ne dañ lay bëgg rek te yàlla ndax émission bi dag ñuy wax nan lay duggee ci direct ñu mën ko gëm waaye wax nii rek day nii ay jamono yi wax ak yow na ñoo xam ne ñu ngi seetaan émission bi mais seen xel sax nekk fi te am na ñoom ñu ngi tiimu télé nii fi mu di seetaan mais seen xel sax. mais loolu mais leneen a ngi ci mais loolu c'est valable pour ñëpp man man des fois ma jàkkaarloo télé bi sama xel nekk ci leneen. télé bi dana la kon tey loola ñàkk a nekk di ñëw na. a ba kii wax ñu direct li ma leen wax da ko nit ki nit day dox bu fërluwut. da li ma mën waat sëñ Tuubaa mooy nit buy waaxule dem te fërluwut alalee jënd la barke sëñ Touba sëñ Touba mais damaa bëgg du dégloonte ñu daal gis nga sëñ daam exemple yi may jox nii man exemple yooyu xam naa ko di xam na ko ba Dabba xam na ko Azmi film mooy que des fois da ngay jàkkaarloog télé xool sa xel nekk ko sànq Abdou Aziz mi ma tiim di wax ak man may ma maquillage sama xel a ngi ci leneen mm. loolu lu naturel la ci nit ki loolu du xam-xam dafa loolu lu naturel la du xam-xam non sa xel am na gis nga sëñ daam loolu lu naturel la sëñ daam téléphone bi ibbeeku na de naturel la du xam-xam nit ku ne di nga toog fenn déggoo Youssou nduur ni xel mën naa tukki dem lëñ ba leneen lu neex ñëwaat toog. loolu xel la problème xel la. waaw mais loolu moom xam-xam aajowu fa loolu man mii sax mën naa la ko décortiquer. waaw léegi kon léegi kon wax nga wax ji léegi nag xel bi voyagé na kon léegi xel bi tamit dara mën na ci dugg mu defu toj toj. ñëwaat man loolu d'accord ma ko. ah bul la gis nga yaay eh, bu tëb yaay bu tëb lii yaay. ma ñëw xam nga tax xam du ma ma nang man bu ma naree bu ma naree bu ma bu ma Abdou Aziz mi naree rey xam na ko toog na xalaat ko Bella Sène mii li ma def naqari na ma toog na xalaat ko am na te ma nag ma ñëw toog na xalaat ko Bella li ma def naqari na ma toog na xalaat ko mhm. daal nii laa ko war a def ah loolu mhm. tayoo loolu tayoo am na ci ñoo xam ne te ji Bella tooñ nga ma bala ma laa sàkkal pexe waaw ah, léeg-léeg damay xalaat naan fu ma war a dem xel mi liggéey est-ce que dégg nga bu ma defee li ma def lu ma ci mën a fekk xel maa ngay liggéey kon waaw waaw est-ce que xam nga ma kon ma ngay liggéey kon xam nga xam nga kon xel kon loolu ma la ci wax rek mooy la ci ne soxna Bella <laughs> billaay da ngeen du ngeen ko ma sa nangu mais li ma leen wax nii ñi ñi ñim daal xam nañ am na ñoo xam ne def nañ loo xam ne bëgguñu koo def barke sëñ Tuubaa billaahi wallaahi la si. te ñu ngi wër ci sëriñ si naan nañ ma dimbali dindil ma. dama xamal ma yaakaar ki rey nit police lay ragal moo tax. police lay ragal salaamaaleykum. bu kii allo maaleykum salaam. soxna si noo def. maa ngi fi laay xaaral ma am ku ma la paas. waaw d'accord. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ni ngeen def. sëñ bi noo def ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar maa ngi seetaan seen émission bu neex bi. ndeysaan noo tudd ak fooy wootee. allo. noo tudd ak fooy wootee allo allo. waaw ñu ngi lay dégg ma ne noo tudd ak fan ngay wootee. Euh, na ngeen def nag may dégg. waaw man maa ngi wootee Cambérène. yaa ngi wootee Cambérène. Hmm. tur bi naka la. na ngeen def seen plateau bi neex na waxtaan bi tam bi am na solo. Hmm. ndeysaan ndeysaan. Euh, hmm. waaw ma ni sëñ bi loolu muy wax noonu. waaw. waaw ma ni sëñ bi loolu muy wax noonu. waaw li muy wax waaw. oh. oh. coupé woote waat. waa sëñ bi li muy wax. pourtant mi ngi wax wax ji moo suufee. waa mais na coupé woote parce que tey jii. dafa am benn affaire boo xam dafa am ci àdduna. Mm-hmm. émission yi bari nañ ci heure bi mais benn émission la Sénégal ak àdduna wërngal këpp. Mm-hmm. diaspora bi taamu mooy li ci mm-hmm. àdduna. moo émission bi nga xam ne day digle tey day yeete. te day yeete ci lu am solo. ñun. nga doon politicien dañ lay teg fii mhm. wax ak yow li saxal àdduna nga doon ab sëriñ dañ lay teg fii waxal li mhm. soxal àdduna mhm. li ñu soxal moom mooy àdduna bi maanaam ñiy seetaan li ci àdduna jële ci njariñ moo tax il faut que ñu déglante déglante bi mooy sëriñ daam ñun am na loo ne boo ko composé ki nu billaay ki nga toogal diggante kajoor euh, la dëkk. waaw côté boobu jërëjëf. non non que sëriñ daam da ngaa tëb dërët di am loo wax. ci campagne ba ay nit di bu seenee jinne di daw. man may daggal saaga ay jinne ak di leen pine ko kay. Ah, eh, eh, kooku eh, Aziz man ma neexee ay yi muy wax ni moom jaru ko yow kay wala dafa bëgg ma wan ko photo daa bëgg ma wan ne ko démb biñ may biñ may fal saltige ah. ma wan ko ko ah, da ngaa bëgg ma wan la ko de nañ waxtaan rek nañ waxtaan rek nañ waxtaan rek sëñ daam dafa am yu bari yoo tëb sëñ daam deret maanaam deret di ñuy wax tëb nga ko mm-hmm. suñu waxee nga wël xam nga tey jii lii solo nit naka la koy solo ak yan saal ak nangam ñu dañu bëgg lu leer te leeraloo dara salaamaaleykum sëñ bi noo def maa ngi yàlla sant yàgg nootu tudd ak fooy wootee maa ngi tudd Cheikh Ouna di wootee parcelle di moo ne woon sa xalaat tey ci waxtaan bi euh, man de dama dégg sëñ Dame di wax loo xamante si ne uh-huh. benn côté mën a d'accord ci côté benn côté mën naa d'accord seen côté. Mhm. waxal bi nga d'accord ak bi nga d'accordul ñu ngi lay déglu. déglu waaw léegi mhm. dañu doon mu ni nit ki bu rayee nit. Mhm. tayu ko. tayu ko. am na ñoo xam ne spécial nit dina leen dara ñu mer. ñu jël ngànnaay ngir blessé ko pour gaañ ko kese la ci jublu. finalement dañuy dem ba ci biir yàlla dogal. ñàkk ci bakkanam. kooku day toog mu rëcc ni moom su ma yëgoon du ko jam. parce que jublu woon pour rey ko benn côté nit yi dana jël ku ku jël baax ren nit. Mm-hmm. ren nit xati. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom du tayef. loolu loolu loolu ah ba dagg bopp bi. kooku tayef la yaa ko tay. ah man de loolu laa wax. mais ki nga xam dafa jël baax nag pour gaañ ko ba finalement day am ci. pour man loolu tay ko waa mën na mën na jublu woon da ko bëggoon a gaañ finalement suñu war jël ba kanam kooku mën a toog mu rëcc. mais ki jël baax ren nit nag moom loolu moom tay dëgg la. préparé na ko. waaw da ko préparé ba ñëw. parce que mënoon na ko gaañ ci poj wala ci feneen ak feneen mais ren di. Mhm. tey la boo kooku mooy dama lay éliminer nga dee benn. Mhm. loolu laa léegi nag bu ko defee ba pare. bu defee la. bu léegi nag bu rendee ba pare après daal di jaaxle wala. ban jaaxle kooku moo ko tey moo ko jublu parce que mën nga gaañ feneen mais ren di ko loolu moo dama lay génne àddina. Mhm. foofu moom amul rëcc moom yaa ko tey. waaw waaw sëñ bi sëñ bi nee na nangul na la li nga wax waaw borom parcelle dafa am loo xam ne nit da koy nangu li sëñ bi wax nii ba pare ñii di wax ñii di wax yaay nangul naa ah, boo ko déggoo ni muy waxee ak ni mu teye xam ni dafa ñëw tey pour napp ñu nangul naa ko kan lay napp nangul nga wax nangul naa ko li wax waaye daal bi sëñ yaay sa lay bàyyi ko xaaral ma ñëw nangul naa ko li wax naa ko li mu waaye xam ngeen ne loolu tamit lu ñaaw la est-ce que doomu aadama valeuram war naa def lu ñaaw. ñaawee noonu xool bopp bi nii rende ko nii. ci sa ci sa tayif carrément nii. loolu ñaaw na de. waaw moo tax moom la ñu bëgg nag nga wax ceeg ñu koy def bëgg mu leer nag. dama ne loolu laa ne ñaaw <laughs> wala loolu ñaaw. kii dama ko bëgg. <laughs> ku ànd ak sagoom carrément dina def lii. ñaaw na de. ñu ngi koy jaaree te boo paree da ngay ànd ak sa sago encore. bopp bi nii di. ni seen ko ni nga tàqale ko nii waaw ah, loolu ñaaw man daa xam nga lu ma ragal kenn waxee nag waaye loolu di ko jaale waa Seras nag di ko jaale Joro Mbaye ma jaaga ndax ci ñooñu la bokk su góor ba pare def la nga def ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax Joro Mbaye ma jaaga sa góor ah, ah, émission bu mel nii man man man man masuma ko. non parce que da nga fay fekk ñoo xamante ne nii. ay caaxaan bu mel nii man masuma koo gis parce que li tax man la émission bu mel nii man masuma ko gis. man man dafa am yëg-yëg boo xam ne man moom laay dund. muy la man sañ daam muy la dafa am façon yëg-yëg boo xam ne moom laay dund te euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa yaatu mm-hmm. xam nga dafa yaatu mm-hmm. kenn ku ne ak lam la may kenn ku ne ak niveau ba mu egg ak dimension ba mu egg xam nga xam nga doomu aadama dañuy nuróo mais bokkul kenn ku ne ak dimension man dimension bi may waxee suuf si moo mel melo li fii def moo ñaaw ñaawin woo xamante nii mbir mi am nag coppeeku goo xamante nii dema naa dem naa dem a dem ba yëpp yi jalaañoo lii di xew di xew te lii di xew musta xew dëgg la yaa ngi dégg dëgg la lii di xew nii xam nga ne mës na xew. dëgg la nañ waxante dëgg. Oh. Oh. Ah, léegi yow foo teg foo teg bi ba lan la lan lan moo lan moo la jaaxal ci émission bi. non daf ne dimension bi muy waxee ak ñun bi ñuy déggee. du mel waaw loolu mooy tax waaw mais parce que ñoo ngi bokk dégg. xaal yi ah. xaal bi ngay waaw ma d' accord naa sa xaal. moo tax man ko wax dama lay nangul la nga wax. waaw d' accord d' accord tey dama gis ni da nga tàng. waaw loo mas def ci nga def tey. waaw ñu gis xaal bi nga àndal looloo ma jaaxal yaay. waaw que wax naa leen ko léegi ci biir wax bi nee naa leen man dimension bi ma toll yéen li ngeen yëg ak man li ma yëg waaye xam nga ne ku ànd ak sagoom ñi ma yëg te yàlla rek tax ku ànd ak sagoom doon nit ñaay hmm. dara nekkut yow dara dugg la la hmm. tii nii nit na ko rëtte ah waaw boo paree na maa ko tay ah waay sëñ Dame ah loolu de moom doy na sëñ Dame xam eh, nga émission bi nag ah, nangul bi lu tax nga man moom boo ñu ma ko ma commentaire man ba ñu ma lool de. man ba ñu ma comment commenter. waaw léegi ñu dellu si ñu dellu si xam nga lu tax mu ne émission bi daf koo xaw a jaaxal mosul def émission bu mel nii. parce que émission yi nga daan def. da ngay toog say jinne ñëw di la jox di la delloo ñoon naan la jinne yi fii da ngaa ñëw pour waxtaan ak askan wi ndax da ngaa am kàddu ci réew mi xam nga li ma la am kàddu ci réew mi nit ñi di la suivre nit ñi di la topp soo waxee yàlla defal na la ko. waaye li ma wax ni xel na nga. waaw moom laa wax am nga fasaaxa boo waxee yàlla nit ñi dañ lay déglu. Hmm. daan dem teg teg say jinne di def la saf ci plateau yi fii li ci àdduna la àdduna bi ngay waxtaanal te li tax ñu tànnal teg la fii nit ñi dañ lay déglu boo waxee àdduna déglu la nangu nga nangu nga ma lool boo waxee àdduna déglu nit ñi xam nañ la nit ñi bëgg nañ la moo tax moo tax émission yi am différence comprendre nga léegi man weddiwuma la Abdou Aziz weddiwu la waa Sénégal ñoom ñoo joxe seen contribution yaay jëlal ko man nangool naa leen de asalaamaaleykum xaaral ñu jël man nangool naa baax noo def sant yàlla bu baax soxna si. sëñ Dara euh, man maa ngi tudd Vieux Traoré di wootee Pikine. Oh, Vieux Traoré di wootee Pikine. Euh, sëñ bi loolu la woon sa xalaat si waxtaan bi. sama patron di di di nag di jiital euh, bi sama xarit boobu mm-hmm. di suma xarit di suma wëlëre di suma lépp. Mm-hmm. neel neel sa emprunté lu ma mën yow la. non non non lépp yow la lépp yow la. jàngal lii. jàmbaar nga garmi nga. Ah. Mm-hmm. Euh, di leen nuyu nag. ñu ngi lay fay. Ah. vie lu ne woon sa xalaat ci waxtaan bi. li bi day daw ah. waaw mais ñu ngi lay dégg lu ne woon sa xalaat ci waxtaan bi. allo. vie vie waaw. Oh, réseau bi day daw de. oh, oh. ñu ngi lay dégg. réseau bi la réseau bee saturé ndax boroom Guinée nga nga. nga kii nag yaay kii kii coupé nii. man mooy vie Traoré. di nit ku baax di nit koo xam ni tey jii. lu mu man ci aar daf ci teg loxoom. yàlla na duggaat ndax moom euh, ci côté marketing communication ci lay liggéey. société yu bari bare fii yoo xam ne bu ñu taxawee moom la xam naa ne dina ñëw parce que suñ daam tey yaay ni mu la li xam na ne cin bokkul cafin soo amee possibilité rek na duggaat joxe contribution bi suñ daam ma wax la man weddiwuma la sénégalais yi ñoo joxe seen contribution mm, parce que parce que am na loo xam ne man d'accord naa ci ak yow mooy benn nag laa d'accord ak yow bul fa ne benn muy que nit jékki-jékki toog jënd buumam dem xaru loolu rab bokk na ci mhm. wala jinne dugg la mhm. parce que ñi xaru euh, euh, bërkaati démb rek am na ko xaru benn paa xaru suñu ginnaaw kër mhm. xam nga loolu bu tayef dem jënd sa buum ki ko jaay déedéet defal naa defal naa ko rek waaw déglu ma déglu ma ñëw rek déglu ma ñëw sëñ daam ki jël buumam takk am na rab bu def loolu dara ah. wala jinne dugg ko d'accord naa ko ah. loolu dam loolu dama koy d'accord gis nga nit day d'accord lu logique ah. mais xam nga lu ma d'accordul nga xalaat sa xalaat ba xam ne kii da nga koo war a rey gis nga nit boo rey réccu xam nga loo ragal pëlis ak kaso moom nga yuuxoo ak police kaso wala mer topp la d'accord naa loolu mais li nga bëgg waaw li mu bëgg a wax kut ko kut ko tayuñu ko tayuñu ko tayuñu ko day tax gars yi taaju ba pare rey nit ba pare yor sa paaka di daw ngir bañ ko la laal <coughs> nangul naa la li nga wax soxna Bella man it nangul naa la man nangul naa li nga wax mm. ndax li tax man la nangul naa la li nga wax mm-hmm. yaa gën a xam ne ci jëlu buum ak àdduna ni mu neexee àdduna ni mu neexee am na ci ñoo xam ne àdduna ñoom mm-hmm. àjjana lañ ko jàppe mm-hmm. te àjjana am na sawaram na ñu mm-hmm. xamee ko yii nii lancement la rek bu nit defee ne mi ngi àjjana te àjjana bi ñëwagul voilà léegi nga jël buum yow amoo lenn loo def lu dul dem rey ci sa bopp rab da day dugg ah rab am na ñoo xam seen rab da leen di xaraloo rab la dugg waaw am na ñoo xam seen rab da leen di xaraloo wala jinne waaw nangu naa euh, gis nga rende yu bëri yi tamit waaw rende mbir ma fu mu xewee seeraas seeraas la ki doon wax léegi waaw ci deret ja paaka waaw deret yooyu am na nu mu demee nit ki mën na xabtalu ah d' accord. mën na xabtal xam nga li nga expliqué leer na nii nag. nit ki mën na xabtaloo léegi bu xabtaloo man na def loo xamante ni sax tayu ko loolu tamit loolu moom réew mi faaw ñu nangul ma loolu. nangul naa la ko def loo xamante ni tamit d' accord nañ lool. day moo tax naan fan la dugg moo roy diw fan la dugg. léegi yow de yow nee nga am jinne da nga am jinne ñun sant nañ bu baax leen yor moo raw jinne man li ma àndal raw jinne parce que turu yàlla laa dama la laaj xuloo ma dama la da may xale ba ndaw la ma Cheikh Ahmad Bamba feeñu ah, jox ma turu yàlla léegi boole maa kaw na bi sëñ Mountakha Bassir dama wuti sëñ Mountakha Bassir ay fay lamp ak ay yooyu dama siyaare sëñ Mountakha waa ma ñëw rek da koo laaj rek a da koo laaj rek da bëgg ma def mbir rek bëgg ma def mbir rek mais damaa bëgg ñu waxtaane réew mi rek bu ma def mbir doo du ngeen ma fi indi déglu leen ma rek man moom xam ngeen ne man. kii daa pare pour xulóom gi man man déglu leen ma rek déglu leen ma rek man may xale ba ndaw. Ah. la ma wàllu feeñu am lu mu def ci man. ma parewaat di déggaat lan mooy jinne lan mooy jinne ma tourné jiwaat gën génnaat gëstu jiwaat lan mooy jinne ba mën koo téye ak di ko duma ak di ko saaga. léegi jinne nan lay duggee ci nan lay duggee ci nit. waaw waaw waaw kay. col bu col bu yiwa ji kay bàyyi. gis nga yow kii ngi ma nag. diglu la ay bi may nekk xale. dóor da nga dégg mag ñi naan la bul dox ay waxtu timis ak yooyu wala. waaw ah, waaw dañ ma koy wax ba léegi waxtu jinne waaw soyaatinu moo tax ñu la bul dox waxtu yoon. lu tax booy desal ay jëmbax aawut ak ay lu sexe jinne di la dugg jinne du dem ci li li lu yiw li euh, pour nga wax ci xale yi quoi pour ñu wàññi seen col yi. nii bu ko xale yi charmé du jël de xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xale yi ñu neex a tuuj seen as laa la bàyyil man tey as laa la bàyyil. xale bu tuuj weenam neex xale yu neex yi. waaye bañ nga dem xale bi bañ damaa laaj lu am am solo. waa ñëw la la damaa laaj lu am solo. Ah, eh, eh. mag ñi danañ wax naan bul wax dox waxtu digg njooloo. waaw dañ ma ko dañ ma ko yooyu li ko waral mooy dañuy bañ nga waaxu traversé ak ñooñu. ñu dugg la bu la duggee mooy waral léeg-léeg nga tàqale sa sago simmiku léegi ko kon ki simmiku daa am daa la ko simmiku daa ko d'accord ah, ah, am na lu ko dugg école yi waaw loolee bu ko duggee nag ba pare waaxoo tamit boo jëlin nag sëñ du la ko dugg tax ba tey kooku dafa dof sëñ daam wéeru ah, dafa dof am na ñoo xam ne ay dof yaa ngi ci waa léegi dama déglu ma kii de wéeru dof yaa ngi ci nit ñi am na ñoo xam ne ñu ngi sol yéer ay dof la mais yow de mais laa ba naa la bis naka tey am na eh, ñoo xam ne eh. ay dof lañ dañoo simmiku nii eh, ñenn ñi di wuyu téléphone di wuyu ay dof lañ jaay sama loxo di nga gëm fukk a a ma li a laa dul nangu kon yow nga gan déglu ma rek déglu ngay forcé nit ñi ci plateau yi man nga ma dul forcé da nga doon ma rek ma la say del si man li ngay forcé nit ñi ci plateau di teg di teg sa sa sa sa sa xitma man doo ma ko tegal man doo ma ko tegal quelle que soit la situation. du teg waroo ko wax sama yaay. déedéet fukk yu ko gën man man maa leen gën metti na ma de metti na ma <laughs> léegi dara metti daa am gan rek dama lay laaj. sëñ daam dama bëgg ñu posé ñu wax ci xale yi nga xamante ne nii jinne yi dañoo ne ci école yi di dugg xale yi xale yi di crise mën nañ ci dof te di boo dee gis élèves yi nga xamante ne nii dañoo mën a jàng lay njëkk a dugg loolu nangul naa la ko gis naa ko teg waa bàyyil ma ñëw gis naa ko teg naa ci sama bët gis li ma d'accord la yow ba téeméeri émission duñ ko d'accord mooy ñiy rayee am na ci ñoo xam ne ñoo ko tey ñoo am na ci ñoo xam ne ma taxawoon moom na moom nangu ah, waxal nangu naa ci kaw léegi ah, ne moom ñoo ko <laughs> nag moom dañuy def loo xamante ni la leen dugg moo tax ñu def léegi kon ñëwal waxal ma ci xale yooyu waxal xale yi ci école yi xale yi dem ci gaal gi xale yi dem ci ci ci suuf si na ñëw ci école après mu ñëw ci gaal gi surtout nag moom yaay mi toj nit ki fa xelam nekk rek foofu la jëm. non jinne yi du tax ñu fréquenté école yi. sa mas naa dugg ci école faj ñooñu. ah ah, ah pour jinne yi lan moo war a ñu dugg. ci yow nee nga am nga wax naa la ba tàyyi ne la waxambaane moo xam muy góor moo xam muy jigéen bu ma ñëw Abdou wax naa la ba tàyyi ne la waxambaane moo xam bu góor moo xam bu jigéen Aziz dana gumba balaa émission bee ah gumba boo eh, boo ah, dana gumba de Aziz noppi ba ma sa xarit la xaw ma sama dooma ndax man ba ma tàngee ni jinne yi dañuy ñëw dañu gumba waaw bu ma tàngee te man bëgguma émission bi yàqu léegi waaw vraiment laaj lam solo de yaa ma laaj xale yi léegi xale yi waaw lu tax nga bëgguma maa gumba eh, déet moom kay boobu am na nu muy demee da ngay jékki rek di laa mbat sa àppa rek <laughs> pour mu leer léegi eh, soxna Bella tey am nga gan tey moom xam naa ne am na laa faale sëñ Demba Seck léegi léegi soxna Bella moo xam muy waxambaane bu ndaw la eh, eh, eh, muy jàngat bañ a jàngat ci yam moo xam ca école la nekk nekku ca nan la xale moo xam bu góor la ak bu jigéen a ci yam mm. bu defar wut ay bokkam defar ko defar ko ay càngatu alxuraan ak yooyu mais sëñ bi ah, waroo di dugg ci école di dem di ñëw mais damaa dégg xam nga xale bu am ñetti at nga xale bu am juróom nga dugal ko école doo tar mais damaa dégg colin ah, nag léeg-léeg li ñuy lool solol xale yi waaw mais colin yi laa bëggoon mu wax ci xale yi dañoo mën a sol col gu ah. col gu yëngu loolu wax ci bu baax te des fois aussi rab mën na ci mën na ci jaar dugg la wala jinne wala wala ngelaw li ñuy sol seen i ween day feeñ li ñuy sol seen jëm day feeñ. seen yaram yi di feeñ. ñu sol lu am gaz. yooyu moo waral tamit Arsenal koo ci gis boppam. léegi da ngay peser kon Guinée am na ci ay caga de kon. waxal xale waaw des Guinée lan ah, waaw na ay caga. am na am na ñoo xam ne ay kàccoor la ñu mhm. xanaa xamoo ne. jëndee euh, waaw wax na dëgg. man man man boo waxee xam-xam rek ma nangu. Ah, lii mu wax nii. Ah. lii mu wax nii xam am na ci yoo xam ne ay kàccoor lañ koy. na jur xam ne ay kàccoor lañ xanaa xam ne nit a ngi mooy yàlla la ko dugg muy mooy yàlla da koo xama ah. na ñoo xam ne mi ngi mooy yàlla bu soñoon génn ca mooy yàlla ga loolu la daa ba tey jinne ko dugg di ko am na ñoo xam ne am nañ dëkkër waaye ñu ngi mooy yàlla rek ah sëñ daam na temps bi mu ñuy xoj man maa ngi wax rek waxtaan bee neex paase na bu yàgg waxtaan bee neex temps bi paase na moo tax maa ne def sëñ daam tàggatool waxtaan bi neex na Euh, mais tàggatoo émission bi neex na mu gaaw tey. léeg-léeg nañu waaye daal li nga xam ne mooy li wér woon mooy nit ñi faaw ñu defaru moom. ñu defaru rek faaw ñu defaru. ngeen bu defaru bu ko defee rëcc ci saytaane. parce que wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. suñu borom ñu sàkk ñun ak i jinne

bàjjan bu baax boobu nga xam ni mooy borom kurus gi laa koy wax yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm di wax ni sëriñ Demba Senghor saltigi bu mag bi ñu ngi lay ziar sëriñ Asek di ñaanal ñëpp jàmm sëriñ la woo yàlla na yàlla defal jàmm sama yaay jërëjëf waaw léegi temps bi temps bi ñu ñu ñaanal ñëpp